a ab boo xam ne bu wér lay doon ci lu jëm ci wàllum kooma boo xam ne nag dana mën a suqali secteur privé national bi loolee gisuñu ne état bu Sénégal def na ko waaye tamit ñi nga xam ne ñooy opposition bi amul benn programme économique boo xam ne bu fiable bu ñu proposé ngir nag mën a yokk doole ñi nga xam ne ñooy secteur privé bi te Sénégal secteur privé national bi solo si nga xam ne moom la am fu ko waay natt daan na koy passé waaye nag bu ñu si deful ndànk musiba mën naa am lambaay mën naa ñaawa waaye nag mën naa am li nga xam ne mooy PAP 2A bi loole nag mën a sauver économie nationale bi yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na en tout cas li am ba des daal secteur privé bi ñoo ngi wax na nag état bu Sénégal ak opposition bi na ñu proposé nag a programme économique bu fiable boo xam ne nag dafay suqali secteur privé bi yéene kaay gi de la turbine xëy du duñu xibaar naan ñu góorgóorlu yi jamono ji ñi nga xam ne seen loxo jutul seen ginnaaw sonn nañu ba maara détaal yi li ko waral mooy njëg yi nga xam ne yokk na lool ñi nga xam ne nag ñooy commerçant yi commerçant yi ñoom lu leen neex la def tey commerçant bi day jaayee cent franc benn mbir suba mu jaayee ko deux cent francs benn mbir ginnaaw suba mu jaayee ko cinq cent francs maanaam yokk gi nga xam ne moom la commerçant yi yokk te teguñu ko fenn loolee ci boppam moo jaaxal nit ñi te nag état bu Sénégal bi nga xam ne moo ko waroon a lijjanti amul lenn loo xam ne nguur gi lijjanti na ko si maanaam état bi sax dafa mel ni ñoom faale wuñu ñi nga xam ne ñooy askan wi askan wi jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jànkonta la ngañ ñu gouvernement bi nekku si yéen kaay gi du ñu xëy fekk fa député Alioune Doumbourou Sow bu APR moom Alioune Doumbourou Sow nee na nag Macky Sall ay nit ñoo xam ne ay traître ñoo ko wër Macky Sall ay traître ñoo ko wër loole nag kàddu Alioune Dembourou Sow la yéen a kaay gi du source a xëy di ñu xibaar naan ñu député yi nga xam ne ñoo bokk ci wàllu Sénégal démb seeti woon seriñ Serigne Madani Talla journal bi nee na famille omarienne dañoo bëgg a boole waat Abdoulaye Wade ak Macky Sall ndax ginnaaw Serigne Mountakha ca Masalikul Jinaan jamono ji nag famille omarienne ñoom ñoo jël yéen a kaay gi di 24 heures ñu koy fekk fa Doudou Wade Doudou Wade nee na nag assemblée nationale wàllu Sénégal taxawal groupe groupe parlementaire Yewwi Askan Wi taxawal groupe parlementaire loolee mooy li gën mooy lu baax li yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien nee na lu jëm ci installation assemblée nationale jàpp nañ ko fukki fan ñaar ci weeru septembre yéen a kaay gi ñu xëy fekk fa Abdoul Mbaye nee na où va le Sénégal Sénégal fan la jëm ak Macky Sall mi ndax nag juróom-ñetti weer ngi nii Macky Sall mënut a fexe fexe ba daal di nag a ab premier ministre lan moo tax sax Macky Sall defutul li nga xam ne mooy ay moo yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu gaay yi dafa mel ni yëguñu lu xew a Macky Sall ci boppam bopp bi moo ubbu Macky Sall bopp bee ubbu élection législative yi moo salfaa ñëwaat carte gi moo ko salfaa ñëwaat ndax Macky Sall amoon na programme moon na programme waaye nag ginnaaw élection législative yi ak nag maanaam résultat yi nga xam ne moom la bennoo am loole ci boobu nag jamono ji moo ulbati bopp Macky Sall be ñan lay dugal ci gouvernement bi kan lay def premier ministre kan lay yóbbu assemblée nationale jaaxlewul yow xamoo li xew yéen kaay gi de Le Quotidien ak Sud Quotidien nee na Macky Sall dañ koo sës ci miir bi Macky Sall dafa sësus ci miir bi jàmmarloo ak Ousmane Sonko mi nga xam ne maanaam ma ngi yokk doole moom Ousmane Sonko ma ngi yaatal li nga xam ne mooy ay farandoom ndax taxawal na mouvement ma ngi Pastef yéen kaay gi de enquête ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko njiitul Pastef nee na 2024 incha allah réew mii di Sénégal ci ay loxoom lay dugg moom Ousmane te nag bu boobaa ñi nga ci àlalu réew mi ñoom ñëpp la ñuy guur guur dugal leen ci kasu bi waaye nag ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak Macky Sall di ma jéem a comploter man Ousmane Sonko lépp nag yëg naa ko bu leen neexee ñu nekk sa palais ba di dalal ay way politique di dalal ay député di dalal ay magistrat maanaam police ak gendarmerie di leen jox ay garantie loole sama yoon nekku ci man Ousmane Sonko faalewu ma ko sama xalaat sax nekkul ci loolo li may xalaat jamono ji mooy samay farandoo ñu dem ci biir àll bi yëpp waxtaan ak monde rural bi ndax 2024 soreetul te incha allah 2024 damay gagné élection présidentielle yi man Ousmane Sonko sax damaa waxoon ne naka dinaa def ab tournée waaye nag dama koy gën a gaawala mois de septembre bii laay commencé tournée bi mois de septembre dinaa wër Sénégal gi yëpp ndax sama yaram dafa tàng yéen gii di 24 heures nee na liggéeykat yi nga xam ne nekk ci autoroute Ila Touba ñoom nag jamono ji mer nañu ba maara détaillé ndax dafa am fukk ak benn si ñoom ñoo xam ne dañu leen a dàq si anam goo xamante ni jaarul yoona ñoom nag nee nañu weer wii di ñëw weeru septembre danañu bloqué lépp danañu dem ci ab grève mooy liggéeykat yi nekk